Bon, salam alaikum à Babacar Kouma, l'international sénégalais, joueur Alanya Sport. Salam alaikum, je suis Adam Mbeng, euh, ex-joueur SMK. Ouais. Sa Majesté. Sa majesté. Saison B, bon, j'ai fait une bonne saison. Euh, euh, malheureusement, j'ai quelques blessures. Je suis 14 matchs, je crois, mais j'ai marqué 12 buts en 25 matchs, je crois saison bu neex la boo xamante ne gis naa sama bopp te vraiment euh, doon naa divertir que lu amoon ay at yu bëri yoo xam ne manqué woon na ma divertissement boobu. waaw c'était pas facile nag parce que euh, seen style de jeu ak ñoom seen style de jeu dafa ute woon yomb euh, yombul nga ñëw rek intégré yooyu na mais de fur et à mesure ngeen di entraîné wala ngeen football dinañ dem ba xam yow ban ban façon zone nga tout ça mais c'était c'est bien quand même waaw.

ñoom dañuy préférer jouer ñoo xam ne ñoo am nañ contrat bu bu xam ne deux ans wala trois ans lay demee quoi mais man moom xam nga man Baye Fall laa bàyyi moon quoi joué naa quelques matchs mais c'était pas facile xam nga mais j'ai jamais baissé les bras quoi j'ai continué à travailler et li si kanam daal xam nga mooy daax quoi incha allah dina ñëwaat au top incha allah waaw maax kii dafa yàgg. du tay quoi dañoo yàgg depuis temps booy école football local xam nga après moom mu dem Italie man ma dem États-Unis après moo tax bu ñu ñëwee xam nga ñun tout le temps ñooy nekk ngoon gi ñooy bokk ak def suñuy entraînement après guddi gi ñooy toog naan caayen xam nga max moom yàgg nañ trop xam nga borom baax la xam nga dara du ko boole ay xaritam quoi xam nga moo tax borom bañ koy ñaanal gudd fan wér gu yaram xam nga yàlla musal ko si làmmiñaax xam nga gaañu gaañu yooyu noonu waaw Adama dañoo yàgg du si ñun du njëkkewul si ñun su suñuy parent la njëkkee euh, suñuy parent sama kilifa gi toog nii tey yaayam sama yaay sama bàjjen ñëpp samay grand frère ay grand frère am kon du du ñun avant la woon moo tax yàlla def tey maam moom ba léegi nii ñu nekk di ànd mu doon koo xamante ne jàppul dara daal taalibe la maam moom mayam parce que dañuy dox sa ñu naan taalibe yi comprendre bu baax la xam na li xam na ne du ma ko jay moom xam na loolu ku baax la moo tax ñu mën a def am na ñeneen sax non mais moom daan dañ daan ànd ak ay taalibe di football nekk dañuy nañ jàngi mais ñun taalibe lañ daan nekk doon football moo tax taalibe ba léegi dañuy bind Instagram mm-hmm. naa ma xam ma ne noonu xam naa leen bu baax xàmmeewu ma leen daf leen xam mm-hmm. don dem leen football kii di ñu dóor naa dem leen basket teeree basket bii nii bi mm-hmm. ñu teg affaire bi tey kon bon am nañu avance yu ça va yoo xamante ni vraiment danga boo ko xalaatee boo ko fàttalikoo di nga xam ne Euh, am na loo xam ne parcours boo xam ne bu baax boo xam ne teg nga sa tànk. xam nga ñun temps booy moom dañ dëgëroon bopp waxi jàngam waxuñu si dara dara dara nga rey ñu xam nga man damay yeewu ñëw fii ñu dem man nañ dem ba Bargny uti barke Sonia des fois ñu dàq ñu foofu ñëw bu ñëwee ñu dóor ñu mais du ñu bàyyi dañuy ñëw football xam nga terrain basket bi dañuy ki basket suba gi ngoon gi ñu dem terrain bi sunu Ibou Diop sunu coach daañu bëgg a reex dóor bàyyi leen basket bi bàyyi leen basket bi moom ñaar yëpp kay moom kay basket moom man mooy dugal man maay marqué football bi man maa koy marqué moom mu dugal. affaire basket moom dafa yéexoon doon naa basket nag moom laa gënoon bëgg ko football sincèrement moom laa gënoon bëgg ko football mais ma demee ba toog xool xam ne bon football bi moo gën a gaaw te si nga gën a mën a dimbale say waajur. dimbali sa bopp dimbali say waa dimbali ñëpp ñi nga xamante ne nii ñoo la entouré. je mën daal sport daal moo ñu nekkoon quoi moo tax mu naan basket di football man may basket di football boo ñu gisee nii bu ñu teewoon bal da nga naan nii ñii est-ce que ay basketteurs lañ waaw te daa ñëw fi di ko ñàkkantee gars yi basket championnat ñu même terrain dañu naan mais yow foo jàngee basket parce que dañ ko fooyee daal parce que daan basket di football loolu la loolu nag lañ ñëw jël habitude boobu continuer ko fi nga toog nii fii ñu mun nañ am vacances dem fu ñu neex dëgg yàlla mais ñun Sénégal lañ bëgg ñëw lu ñuy lu ñu si lu ñuy dépensé ñu dépensé ko biir Sénégal doomu réew bi gañe ci que may dem beneen dëgg beneen doomu réew di ko gañe loolu moo tax choix boobu lañ def rek te xam ne tamit li ñu soxla ñun fii la ne Sénégal la ne. ñun moom vacances bu jotee direct Sénégal day ñëw nga ñëw toogaa say copains loolu moo gën a neex quoi sa stress bépp day deñ xam nga moo tax ñun lépp lu ñu am Sénégal. Sénégal ndax fee moom xam nga dafa métti neuf mois wala six mois six mois yoo xam ne ni li même même chose ngay def même chose entraînement match entraînement match moo tax bu jeexee rek dañuy ñëw Sénégal man moom vacances moom Sénégal rek bu mu amee sax cinq jours cinq jours fii laa koy passé xam nga. xam nga boo demee fële nga xool ñoom ni ñuy organiser ndax boo ñëwee fii xam nga affaire du benn quoi manque d' organisation bi quoi mais am nañu jour xam nga meilleur jour d' Afrique. yëpp ñu ngi suñu xam léegi li des ma organisation bi rek après dina baax incha allah quoi coupe d' afrique baa ñëw qualification pour ñu incha allah yàlla dina def jàmm. Hmm. mooy li mu wax rek euh, gis naa zone yi di ko xaw a kaas tuuti di si wax mais loolu mooy réalité bi parce que euh, doo jëlee ay joueurs internationaux yoo ne si terrain yu baax la ñu football nga indi leen di leen football si terrain yi nii li nga bëgg li nga bëgg gis yow doo ko gis football bi day des. c'est normal ñoom ñu taxaw wax ko man di wax naa ko depuis ba ma nekk parce que équipe dans la dans laaj organisation organisation teg ci ay conditions yu leer pas ay wax wax wax wax non non ay conditions yu leer xamante ne ñun joueurs yi ñun bu ñëwee amuñu alibi li war mooy dañu war a dugg ci terrain bi li ñu laaj ñu def ko mais tey instant bi équipe bi pertoon sax boo waxee terrain bi la ñuy wax loo ci man terrain bee baaxul mais bu ñu tegee ay conditions yu leer amélioré lépp. lépp lépp laa wax de lépp ma fen équipe bi mën naa sori parce que yeneen équipe yi damay gis ay Égypte damay gis ay Maroc gis yeneen équipe yi doon biir Afrique lañ nekk. kon yaakaar naa li ñoom li ñu war war nañ ko mën améliorer lépp lépp laa wax lépp côté yëpp ñu améliorer ko équipe nationale mën na dem fu gën a sori fi ñuy nekk nii mën na romb fii yëpp di dem. man moom sama liggéey laa ne. man moom bu ma deful euh, bu ma deful saison man soxlaa ma ñu oo ma parce que man samay performance nga may oowee oowee moom parce que branlon samay performance bu ma deful man xam naa ne man defuma saison bu baax dama leen di ñaanal ñoom ñu dem bu ma defee bu ma deful bu ñu ma oowee bu ñu ma dama leen di ñaanal ñu dem kon ñun suñu liggéey lañ ne di continuer bu ñu oowee ñëw représenté sénégalais lañ ñëw représenté bu ñu oowul ñu ñaanal leen parce que ñun ay sénégalais lañ waaw loolu la rek mais ñu ngi entraîné nekk suñu yoon. di di di di continuer quoi di football waaw. waaw comme nu ko waxee rek xam nga équipe nationale moom c' est li nga wane sa club mu si la lay woowee quoi il faut nga do il faut nga performance après lépp nga bàyyi ko loxo yàlla quoi mais bu ñu ñëwee bu ñu ñëwul xool yaa ngi fi quoi xam nga ndax ñun on est fier quoi. waaw man damay delluwaat Alliance Sport parce que des na ma fa contrat 6 mois yoo xamante ne dama ko euh, terminé. j'ai pas mal de propositions mais daa am lu may séntu leneen moo tax ma ma resté quoi mais bon saison bi moom nañ ñaan yàlla rek yàlla def ci jàmm ak salaam bañ kenn bañ a gaañu ñëpp xam nga ku nekk am sa wér gu yaram ñëpp ah. après bon ñu xool daal li nga xamante ne mooy ci kanam daal. <laughs> waaw non am naa fa ma but. sama j'ai pas mal de de de propositions mais ça dépend li ñu lay proposer ndax am soxla nga ko loolu wala soxla woo ko. parce que toll naa benn instant benn âge boo xamante ni damay xol li nga xamante ni moom mooy li ma arrangé man pas li arrangé club bay mais li ma arrangé man moo tax lu bëri dama koy tegee na le même bu dee équipe bu mag sax dama koy tegee na jël fi nga xamante ne foofu li ma soxla muy fa loolu moo tax même bi may ñëw Alagna sax amoon naa yeneen proposition mais daa am lu ma soxla woon relancer waat nekkaat yow Babacar Xuma man personne Babacar Xuma ne dugg si terrain bi divertir football dugal ay but mm. loolu loolu moo taxoon ma visé Alagna parce que Papis tamit démb si sa grand bu baax la dafa ma ñëw wax ma ne ma ñëwal équipe bi lii teg ma wax ma ay conditions yu baax ba pare wax ma si équipe bi dëkk beeg tout ça moo tax ma ñemee dem daal. waaw fu mu nekk naa nga je suis libre quoi léegi gars yi ñu discuter léegi damay xaar rek xam nga bëggoon waa waaw am na ay sept wala huit club mais dañuy def xool yu yu yu gën quoi ak yu ma arrangé ak yoo xam ne bu ma demee xam dina wane li ma man quoi. ah man de man damay ko am na benn dama bëggoon mburu faas am na benn jour dama toogoon si banque Fiorentina bi yóbbaale def sama poste <laughs> def sama poste mais bon temps yii maa ngi am ay 19 ans ay yooyu noonu 19 ans mayoon ma ko ma def ko sama poste toogaal di ko <laughs> lekk quoi loolu après dama xalaat naa mais est ce lii laa doon def nii noonu noonu laa ko dugal lekk tout ça mais bon <laughs> mooy loolu daal temps bu xam nga rek boo nekkee xale moom yooyu yooyu dañ koy loolu laa boo loo xam ne. waaw man comme gars yi ni ñu may fii rek. dañ mooy tooñee aada set bool quoi bi ñu nekkee booy école football dañ demoon Thiès quoi léegi jumelage amoon foofu quoi am nga léegi ñu coob man benn bool rek laa toog mais bu ñibbisi non dañuy sóob rek du set benn benn bool rek laa lekk léegi man léegi saxaaru kii bi bu ñuy ñibbisi saxaaru oto bi damay miirloo quoi léegi lii bépp laa wàccu kay. diwlin bi la woon diwlin dafa toog suñu bool ñoo bokkoon bool mu jóge bool bi dem bool bi jóge bool bi dem. aada mu jóge bool bi dem ba aada mu jóge bool bi dem ba toog si ot bi ma ne ko yaa yee neer parce que diwlin bee bari si yow. lépp lépp laa wàccu <laughs> lépp. ñu ne ñu aada seen bool la. <laughs> laa école football loolu quoi. Ah, boobu Ibou Diop ñu yoroon Ibou Diop fii mu jur waaw ñu ngi leen di jaajëfal nag. vraiment merci beaucoup si li ngay ñëw xam nga. toog def benn interview passe temps ak ñun waaw ñu ngi koy rafetlu bu baax waaw comme ni nga waxee di remercier ñëpp di leen remercier xam nga affaire bi yombul jógee Dakar ñëw fii xam nga di leen ñaanal 13TV bi bi gën a yokk incha allah rabbi quoi di remercier ñëpp waaw wasalaam. ok merci beaucoup.